fi Wally Seck langalee saagu jigéen sac de femme porté par un homme qui a une tendance homosexuelle en Occident kan nga dégg ci ñiy coow tey dàll bi t-shirt bi kenn waxul Jamra Cotte moo monté woon au créneau ma woo ndey ja ndax dañu nekk ci dëkku dëkk bu yëw qui est profondément ancré dans ses valeurs religieuses dañu ne sa coreligionnaire bu tarxisee lislaam bëggul nga ne bari dem sa pénc ma di ko xalab lislaam bëggul loolu da ngay jiital baat boobu nga xam ne si coow Ahmed Cissé répété naa ko fii ba mu boy ci nopp yi waaye yàllaa ko wax du waxi jamra wa amrohum shura baynahum suñu borom moo ne yéen jaam yi da leen di farataal shura shura tubaab di ko wax concertation wolof di ko wax diisoo loolu laa defoon ak Wally Seck en yaay jënee ma dafa tukki tukki bi bëgg a yàgg Jamra def déclaration mais ko yow Wally Seck saag bii nga fi bëgg a jàllale te ki nga xam ne moo ko sos du nit ku baax muy la rappeur Kanye West du nit ku baax ndax ku dem ci sa page Facebook nga définir sa bopp ne j'ai conclu un pacte avec la diable du nit ku baax ndax ku dem ba sa clip yi ngay jàllale d'ailleurs ku ko weddi bu bu ñu paree daje bi nga dem ci YouTube vérifier ko chaque fois bu way wi jeexee balaa clip bi jeex dernière seconde bi slogan boobu ñëpp xam nañ ko mu di I sold my soul to the devil j'ai vendu mon âme au diable maanaam man nii kenn we sama ruu gi jaayar jaay naa ko Iblis kooku royukaay la ñu ne ko kooku nag comme que moo fi lancé saagu góor jigéen bi wala mu bokk ci ñi ko lancé yow Wally ñu ngi lay yégal ne loolu dencaat ko parce que ça ne passera pas ici au Sénégal daal di defar suñu plainte boole ko ak preuve yëpp yu wane ne kii c'est une tendance homosexuelle en violation de l'article 319 du code pénal bi nga xam ne non seulement xaraamal na les actes contre nature waaye toute action qui va dans le sens de faire une propagande LGBT ñu daay defar suñu plainte ci noonu la Wally jóge voyage ba mu jógee voyage avant ñuy déposé plainte bi ñu dolliwaat beneen déclaration nee ko yow sa saak bi mu ngi ameel ak penc mi ndax déjà sa fans yi am na ci ñaar presse baa ngi relaté fitna jimu mu leen dikkal kenn ki fii la liberté 6 les deux voies parce que fans dafa metti soo amee benn idole boo xam ne da nga ko adoré lu mu def rek da ngay gëmm rek imité ko bu bu bu xurfaanee sax nga nga di ko tisolil waaja romb di langal saagu góor jigéen bi romb benn groupe mécanicien gars yi ne eh, jàpp leen góor jigéen la dóor leen dañ ko dóoroo dóor ba dañ ko mujjee rawale hôpital loolu lu ko fi jar la même scène s'est reproduite fii ci weti hôpital Dalal Jàmm lom romb ay góor ñu dóor ko parce que comme que dafa takk saagu kenn wees te saagu góor jigéen la ba dañ ko mujjee rawale dugal ko hôpital Dalal Jàmm lu ko fi jar alors naka noonu bi ñu yégee ne waalee ngi woote concert fii ci Grand Théâtre waaye ñun taxuñu mu woote concert bi daf ko programme de long date dès l'ouverture de de de de son concert yéen ñëpp a ko gis télévision yi teg ko en direct mu jël si ciseau bu bees peq jël saag bi dagg ko en mille morceaux coow saag bi jeex loolu fa ngeen xam ko pour ngeen comprendre li xew tey ndax ñun ba ñu dalee jóg di may bët artistes yi bëgg yàq xale yi volontairement ou involontairement du tey ça c'était en janvier 2016 alors ba mu daggee saag bi ñun ñu retiré plainte bi bi nga xam ne euh, ñu ngi ko doon bëgg déposé déposer à la brigade des mœurs mais dañ si teg ñetti at rek Wally Seck def lu gën a garaaw saag bi mu di le fama t-shirt LGBT mu ngi jël prétexte que Sénégal équipe Sénégal dafa gagné la sélection nationale ougandaise Wally Seck ne dafay joxe contribution ci victoire bi sous forme de euh, sous forme de concert gratuit bu muy def fii ci boulevard général de Gaulle ba pare dem sol mandarga bi nga xam ne mooy drapeau góor jigéen ñi àdduna wërngal këpp muy le t-shirt parce que effectivement ni Sénégal amee raaya muy drapeau vert jaune rouge ak étoile bu verte ci digg bi France am bosom bleu blanc rouge États-Unis am des bandeaux bleu euh, blanc bleu blanc ak 50 étoiles ci angle bi représentant les cinquante états et cetera et cetera góor jigéen yi qui se sont démarqués de la société dañu am seen drapeau bopp qui reprend l'ensemble des couleurs des autres drapeaux des autres nations moom la ñuy tuddee le drapeau arc moo tax noonu ni mu amee drapeau arc noonu la amee t-shirt arc-en-ciel parasol arc-en-ciel euh, bracelet arc cetera waal yi sol loolu coow li ne kur ci dëkk bi fekk ma j'étais en déplacement euh, ba ma jógee voyage rek ci laa ñëw yem ci coow li ma daal di jëfee li suñu boroom wax ne jullit bi bu juum juumee na nga def ak moom suura waaye surtout ma daal di tenir compte des critiques yi ñu critiqué woon Jamra en en janvier 2016 en nous disant waru leen woonu plainte pour affaire u saag bi da ngeen waroon jiital waxtaan du loolu la ñu wax man ma jiital waxtaan woo yaayi Waly Seck mu ne ma dafay nelaw waaye bu yeewoo dinañ ko wax mu rappelé la ci diggante bi jabaru waal yi jël téléphone bi ñu daal di jàmm sante ba yàgg mu ne ma sax bu bu yeewoo danaa ko wax mu woo la ba mu yeewoo moo ma ne ko waal yi sa t bi du yëg nga coow li mu jur ci dëkk bi ma ne ko maa ngi ay capture d'écran deux sites góor jigéen bu hollandais ak benn bu euh, bu belge ñu ngi lay gërëm nee nañ aawaay ah ndax yàlla ñu am une visibilité dans un pays réputé conservateur comme le Sénégal kon à travers jëmm ji di wàllu Seck suñu symbole bu mag bi di la couleur arc-en-ciel sol na t-shirt bi kon daal ñu ngi ko ciy sargal mu ne ma ah ma ne ko waaw boo bëggee ma yónnee la ko waaw ma ne ko nag yow bu fekkee da nga doon màggal victoire u Lions yi contre Ouganda lu la teree woon sol drapo lion yi maillot lion yi bu dee da ngay màggal victoire Sénégal contre Ouganda lu la tere sol drapeau Sénégal waaye lii nga sol ñaari problème la benn bi c'est le symbole de reconnaissance de la communauté LGBT mondiale deuxième problème bi ci ne yaa ngi ko sol au mois de juillet en pleine semaine de célébration des Gay Pride Gay Pride c'est la parade homosexuelle c'est le congrès homosexuel bi nga xam ne góor jigéen àdduna wërngal këpp ni liggéeykat yi di défilé le premier mai ñoom ci la ñuy défilé période boobu nga ko sol loolu neexul a défendre waaye nag ci gàttal yàgg nañu téléphone maak moom ci gàttal mu daal di waat sur tous les saints est-ce que dëgg la ci moom du dëgg si moom su yoon newu ci loolu digganteem ak boromam la il a juré sur tous les saints ne ba muy sol t-shirt bi xamul woon ni boobu signification la waaye mu ne ma tonton tu peux compter sur t-shirt bi dootoo leen ma ci dégg coow t-shirt bi jeex fekk dans la même période Wally avait porté plainte contre imam Ahmadou Makhtar Kanté parce que imam Kanté dafa demoon ci page Facebook am am lu mu ko tuumaal ci wàllu borom ñaari tur waari porté plainte bi ma Wally joxe engagement ne dootul jël t-shirt bi nag ñun ñu profité si def déclaration ne dinañ dox tànku jàmm entre imam Kanté ak Wally bi ko bàyyi con sekk de waal yi jéggee déggee di con sekk moom moo jël téléphone am woo Mouhamadou Moustapha Sy qui est le trésorier national de Jamra ndax ñoom ñaar ba ñu nekkee ay xale ñoo bokkoon benn équipe bu nawetaan bokk groupe xale yuy fo euh, ils ont grandi ensemble à la Gueule Tapée et à la Médina mu woo ko ne comme que yéen Jamra da ngeen ittewoo jàmm wax dëgg yàlla ñun mënuñu leen bañal dara léegi maa ngi nii dama def damay damay def nii benn point de presse pour annoncer le retrait officiel de notre plainte contre Imam Kanté waaye bu ma sañoon yéen Jamra ngeen fekke ko muy sama participation pour gërëm leen seen taxawaay bu rafet loolu moo ñu yóbbu woon Kër Thione Seck mu daal di def discours bu rafet gërëm Jamra jox ma parole tam ma remercier ko mu daal di jeex waaye ba ñu génnee. les mêmes hypocrites yi nga xam ne ba ñu defee plainte contre saagu góor jigéen ba waali doon langal te mujj gi avant ñuy déposer plainte bi mu daggat ko ba mu jeex ba ñu naan ñu waru leen woon plainte waru leen woon plainte da ngeen waroon jiital waxtaan les mêmes hypocrites ya nga xam ne bi mu solee euh, t-shirt bi ñu ñuy wax naan euh, waru leen woon waru leen woon jiital waxtaan ñoom ñoo ñëw dal suñu kaw mais waruleen woon dem kër Thione Seck waru leen woon wax ak ñi ndax ndax duñu ay nit ñu baax <laughs> maa ngi message yëpp capture d'écran yëpp ma daal di nekkoon nag baax na àddinaa ngi suñu kanam c'était en juillet 2019 waaw comme que nee ngeen daal waruma fa woon dem waruñu woon jiital waxtaan incha allah beneen yoon yi teg dañ si teg ay weer rek le 12 juin samedi 12 juin 2020 Wally di concert fii ci entrée Grand Théâtre ci esplanade bi ñaari fecc kantam def fa njombe que tout le monde a vu mu di fóonante en public ci góor góor ce qui est condamné par l'article 319 euh, du code pénal qui condamne les actes contre nature ce qui est condamné par l'article 318 et 324 sur l'attentat à la pudeur lu l'outrage public aux bonnes mœurs public mooy boo ko defee entre quatre murs en en privé yoonu kenn new ci mais dès l'instant ñëw nga ci penc mi loi ba dafay dal seen kaw ma ne nag comme que ñoom ñoo ne waru ma woon dem kër Wally Seck waru woon waxtaan ak moom bi yoon ma ne kon d'accord on a frappé sans waxtaan procureur jàppa ñaari fecckat yi tëj leen fëgg leen ku ne un mois de prison ferme les mêmes naa fekk jogaat ne da ngeen soxor c'est de l'acharnement contre Wally Seck alors léegi nag coow coow euh, t-shirt bi ñëw bi coow t-shirt bi ñëwee coow pardon dàll yi parce que xame naa leen ak ñi may bind message ak ñi intervenir dans nos publications ci Facebook ñooñu ñëwaat daa ne waa xam ci affaire dàll yi mane ne foutez-moi le camp ñu duñu ñu duñu morso bant yoo xam ne dañu ñu kàll-kàlle ñun on dénonce le sac alors qu'on était le seul à le déposé plainte xale bi ñëw dagg saag bi parce que la a reconnu qu'il a tort parce que c'est un symbole et homosexuel ngeen ne dañu soxor waroon nañu jiital waxtaan loolu ngeen waxoon ñu toog ba yàgg euh, affaire du t bi ñëw ñu jiital waxtaan dem ba kër Thione Seck lépp ci rafetal ndax xale yi ñun ñëpp ñoo leen jur ngeen dal ci kaw Jamra diaboliser Jamra mais nous sommes des fumiers waruñu foon dem waruñu wax ak ñoom ñu ne bon d'accord ba beneen yoon beneen yoon jot il y a eu ce scandale là de danse euh, obscène foonante góor a góor bi yoon waxat waxtaan ñu ñu dal seen kaw procureur jox ñu dëgg fëgg leen un mois de prison ferme ngeen ne dañuy soxor c'est de la diabolisation c'est de la l'acharnement léegi coow dal yi jib ngeen ne waaw lii doo leen ci wax ma ne leen foutez-moi le camp dem leen ngeen jëm ko régler seen bopp parce que hypocrisie moo yàq la société sénégalaise booy combattre des contre di xeex pour protéger nos enfants protéger nos valeurs ak ndono rafet li fi mag ñu baax ñu bàyyi ça doit un combat constant waaye Jamra xamul indignation à géométrie variable c'est-à-dire bu la arrangé nga ne c'est très bien noonu la bu la arrangé wul nga ne waruloon wax ak moom da ngeen waroon porter plainte nga porter plainte ñu ne la da nga soxor da ko iñaane sa carrière alors ma leen nag comme que noonu la yéen nafiq yi euh, passé du bleu à orange du blanc au noir comme que yéen ñu gën a xam naka lañ ko war a régler dem leen Wally Seck ngoog dem leen ngeen régler ko donc voilà donc ce que je tenais à euh, donner comme introduction pour ngeen pour camper le débat